tey nag sebo laa leen indil sebo la ñuy def sebo bu toog waaw sama ay jën ma def sama red snapper ak grouper waas naa leen xorom leen limoŋ leen kese sama ay xos tuufa géej bër ñoom yéet yu boni daal ñu ngi nii ñoom ñu ñëw ci ñoom seen ay lobsters ay ñoom mussels ay ñoom shrimps ay ñoom shrimp yu wow yi dry shrimp ak baby clams ñoo ngi nii ak suma blue crab raxas naa leen bem set léegi suma three façon yi onions laa day use nag red onions yellow onions and white ones parce que onions bu nekk ak sa goût daal ak suma bell peppers ak limon bagage yi daal lañ soxla pour suñ c'est léegi sama jën yi nag dama leen di saaf it's optional nag man I prefer this dice na suma onions ak suma bell peppers so red onions bi ak white onions la de prefer si uh, raw one bi bi nga xamne dam ko laal soble bi duma ko toog dam ko laal rek ko def suma mustard dry persil ak kani powder ak suma magi ak xorom ak limon nak limon bu xawa sakan mom la koy marine nak tej ko duma ko tooga mom bi kenn du ko toog dañ koy lax lakhal bam lax ba limon saf-safal yi dugg ko nag léegi ñu jaxase suñ soble pare ñoo ko nag affaire si dugg ko saf-safal bi suñ soble pare na léegi dañ koy ràpp wala dëpp ko for about 30 minutes léegi dañu ñu sotee suñ yellow onions bi moom dañ ciy def Dijon mustard one tablespoon def suñ diwlin kaani poudre Maggi poobar ak limon moom it sauté ko fa about seven to eight minutes yooyu rek ngeen mos xool noo leen ko bëggee mu safee rek ngeen koo saf-safalee yéen a ma gën a xam daal affaire bi gaaw pare léegi ñu ñëw suñ soosu duutiir bi moom it yellow onions bi laay use def suma benn habanero pepper and tuuti garlic powder magi cube cayenne pepper xorom tuuti poobara saf-safal rek So do till bit am yaga about 7 to 8 minutes ñu ko sote. mu paré gis ngeen mu rafété sama doutir baax na xonk na légui sama jën yi ma safon yi ma frayon mom lay ñew mariné ak sama all purpose seasoning bi mariné ko bam saf after ma ko def ci oven bi ma broil ko ku bëgg gis nak sama seasoning bi nu ko défaré mën nga ram sama page bi sama channel bi nga sétan ko it's the all purpose seasoning this the fish one bii bu jën bi la moom laa koy mariner léegi maa ngi ko dugal si oven bi broil laa ko def léegi ne dañ koy broil on each side about seven minutes side bu nekk nga ton ko bu leen jën bi wow nag jën bi wow moom day yàq affaire yi <laughs> léegi ñëw si ñankatang bi maa ngi def suma four cups rice and uh, eight cups of water eight cups yi ndox daal ma def suma dry shrimp def suma géej gi def suma dry oyster mooy dry yoxos mooy yoxos ba pare dinaa def suma netetu def naa suma yéet ak tuufa ñoom seen daal xeetu bon bon yu baax baax daal ñoo dem si njànkatan bi yëngal ko def sa xorom like a teaspoon of salt yëngal nga taste xool ndax saf na léegi xaw leen si njànkatan mu ngi baax de mu ngi togg léegi mu pare tuutee ci des nag gis ngeen xeetu baax baax yi ci kaw nii ñoom chérim du tëmb ak ñoom seen léegi suñ chumse si pax yi la ñuy ñëw steam ñeex bi ma defoon si kii bi soble bi moom lay tiba tuuti def ki ma toogee ko ko nag about five minutes rek chérim si dafa gaaw chérim moom warul overcook ñu ñëw si masul si ñoom buuj ñoom seen same lay def ñeex bi lay tibaat tam steamee ko legi seafood yep pare na dama ko mix ak red onions yek def ni rowan dal, daal bu ma doon lax ngeen mos ngeen xool so len bëgg am loolu yokka ngeen yokka man mo dem day yokka touti limon rek wa na forox ta saf dal wa sama gay, ana kontan genek, ngeen nak sama c'est bon pare na wa kay lañu añ nak seigne soos yi bax ngi inshoosi evastace gi noonu suñ kaani soos suñ soos yi du diir du ranxa bisaab ba géej bi yëpp ngi nii nga am ñoom seen yu baax yaa ngi nii ñoom crab ak shrimp ak mushrooms yëpp ma tegal ay bañ kaay lañu di sante di len gërem yeen bu len faté subscribe si channel bi hit the like button notification button xanaa kontaan ngeen si suñu ñànkatang nak. mu ngi nii de defar kulip leen ko sebo bi boo maa ngi ciy invité sama doom doomi ndey miti naa Ndaw di si di ma euh, kii nii naka la tuddaat matti bi tey ñoom ñaar ñooñu moom sama sebo la ñuy wër invité naa leen kaay leen ñu añ jërë ngeen jëf sama gaay kontaan naa